léegi su ma génnee ci loolu ma ñëw ci seen combat bi nga xamante ni fi mu toll ni bëri na coow muy diggante Modou ak ki nga xamante ni mooy Ama Baldé soo ma doo ñëw ci combat boobu loo may wax. waaw ma ciy wax parce que xamal tax aw ma lu ma ci benn côté. ñëpp xam nañ ne Ama Baldé sama sama papa sama xarit la suma lépp la. dama koy ñaanal ndam mais nag damay wax Modou Lo ne ko am na problème. yow nga looy wax ak Modou Lo. waaw Ama Baldé lu muy wax ak Modou parce que ñoom ñu ngi def seen i sorties di wax lu nekk. ñoom ñan. waa parcelle Modou Lo moo la gën a xam ni Ama Baldé du moromam dañ baay wax ji dañ bàyyi wax ji boobi de liggéey nekk ci ruxam di entraîné. mais ñan ñooy wax nañ bàyyi wax ci ñan ñooy wax. saafam saafam moom dèjà bu ñu defee conférence de presse bi ngi wax affaire euh, combat am ñu def ko ay huis clos combat nan la mën a nekk huis clos comprendre nga. wax loolu ko. combat la mën a nekkee huis clos dèjà beneen bi arène national bi fala la ne Pikine ñun nañ naan jógee Pikine dem di génn di bëreeg ñoom di di ñëw parcelle Ama Baldé fan la mujjee bëreeg Papa Sow Papa Sow dëggul parcelle ñëw nañu fa bëreeg ñoom daan leen comprendre nga kon moom. mais Papa Sow nga wax woo Modou Lo. waaw waaw waaw duñ benn ah, comprendre nga peel ak nag <laughs> A ñëw ndax A bee jiitu marque maam jaara A bee jiitu de te ku mu xajalul doo jàll. fan nga teg ba xam am na mbër yu nekk ci suuf yoo xam ne buñ jàppee mbëri ci kaw duñ doy peut-être suñu borom mooy dogal rek. ah loolu yaa ko xam mais man gisuma. waaw gisagoo loolu mais suñu borom mooy dogal peut-être ñun euh, Ama Baldé liggéey na tey jii ba yegg si fi Modou loo yegg comprendre nga te ñoom ñaar ñoo war a raale te incha allah Modou Lo mënuñoo tere jël roi des arènes. mais est-ce que li nga jege Ama Baldé gis ko moo tax nga yaakaar ni mais Modou Lo mu ngi cay entraînement. Modou Lo du mbër Modou Lo tànku yooyu. lan mooy tànku pooju meeram yooyu noonu biir bi kenn xamul lan la mu ko na bàyyi kurus yi ñun xam nañ lépp. kurus kurus yi muy kurus may ko ndam. nay nelaw ba doyal di tëdd toog ba 3 heures du matin 4 heures du matin di kurus ñun xam nañ lépp yow laa waxal Modou Lo. Modou Lo bi di kurus. ñun xam nañ ñun xam nañ li ñuy wax bu baax. ñun xam nañ mais li ngay wax foo ko teg dañ leen koo dee wala da ngay wax ni pour neexal. Modou Lo la mu daan def di dem ci gars ñu koy butéel bi nii butéel bi ne ñun ñoo ko gën a doon ay ceddo fuuf barki mam Diarra ñoo ko. lamb ji ko bëgg a wékk ci mystique fi mu toll nii. non non Modou xale a bu dee kattan ñoo ko ko ëpp bu dee fit ñoo ko ëpp bu dee bëri ñoo ko daax kon amuñu lu ñuy ragal ci moom te laakaar naa gaalaaj mboq rek la te ëpp ñu ay mboq comprendre nga waaw. dañuy bëggee waale waa Touba gépp di sant sama sëriñ sëriñ Cheikh Fall Mbor di ko ñaana yàlla guddal fanam comprendre nga di sant ñëpp. Hmm.